déposé tours tour m'a parti parti ensemble pour le Sénégal euh, ma suis ci la coalition Ande Sénégal mais parti bi mon porté coalition bi ñu ngi rafetul liggéey administration sénégalaise parce que comme nous avons dit waxee ci et liggéey bi ci remplissage de fichiers yi ak euh, dossiers yi dañ parce que nous avons une plateforme pour nous Si vous avez rek erreur wala erreur de parité de de non ou de doublon da koy rejeté lolu maa ngi leen koy jaajëfal te lolu dafa am solo ci démocratie donc euh, ñu ngi ñaan yalla rek ñu dem ci élection ci jamm ñu génn ci jamm té rafet lii pour que Sénégal gën a pays démocratique parce que lolu moy moy way moy moy tax Sénégal dem ci kanam ñu ngi ñaan vraiment ñëpp bokk ñëpp dem ci jonganté bi et puis que les populations sénégalaises votent librement ci liste bu ñu choisir opposition est-ce que yow jàpp nga ci élection élection bu élection législative coalition yi intercoalition majorité à l'Assemblée nationale donc nous on est ouvert parce que nous ci opposition donc nous ngi ñu ngi ñu ngi waxtaan ñu candidat dinañu pour que la coalition euh, de l'opposition, l'opposition majoritaire euh, de façon générale, puisse avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Comme vous le voyez, même dans les grandes démocraties, comme en France par exemple, Tay, da ngay foog da ngay la partie parti amul euh, majorité ci exécutive bi législative bi moy tax ñu mun contrôler action gouvernementale il faut que l'opposition ait une majorité à l'Assemblée et que euh, comment dirais-je euh, parti au pouvoir bi que ci exécutif bi n'est que démocratie vraiment une réalité au Sénégal Je vous